Euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk majalis maa ngi leen di bu baax di leen ziara di jéggalu bu fekkee nekku ne da ngeen a jàpp ngeen may ma tuuti rek ma ñëw jëflante ak Atoumane ci quelques minutes euh, incha allah bu fekkee da ngeen a jàpp aussi ngeen wax ma ma bàyyi ba ci kanam euh, bon aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana rasulillah wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim wa radiallahu taala an ashaabi rasulillahi wa radiyallahu an cheikhina ahmad tijani radiyallahu anhu wa an jamii xulafaahi wa an jamii awliya mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk ci trom ak jëmmam di leen ziyaara di ñëw pour waxtaan ak yéen ci benn audio bu ma xëy jot tey ci Atoumane eh, benn ojo six minutes cinquante quatre secondes alors ma gis ne daal euh, war na daal saa yu nekk ñuy wax parce que euh, maadaama kiy yàq mu ngi jóg di yàq kiy defar warta toog parce que bu ñu waxee ne nañ noppi nañ leen bàyyi rek <clears throat> wala nañ leen bañ a tontu dafay dem ba dafay niru ne lañ doon wax ñun dafa du dëgg wala dañ koo gëmul alors man nag démb changé naa position te ba léegi ci laa nekk waaye nag du tere lépp loo xamante ne ni qadiya ilmiya la bu ma jotoon na wax ci ginnaaw bu ci nit dellusiwaatee dinaa dellusiwaat leeral sama position boobu noonu waaye du tere ba léegi position bi ma changé démb ci laa taxaw mooy ne li ko daggee ci Seydina Aboubacar ba ci sayidna abdullah ibnu ubay ibnu salul kenn du leen laal radiallahu anhum jamian alors euh, atumaan atumaan wax na wax na ay wax ci audio bi ma tontu démb suñ benn mbokk bu tudd sëñ Mamoun Mbacke bi ma juum bu ma juumul sëñ Mamoun daf ma laaj ne ma moom dafa jàng ci aqidal ashaira ak ci téere yi jàng ci suñu réew yi ñu ne sayidna aboubacar radiallahu anhu moo gën ci mbooleem sahaaba yi xaw ma moo gën ci mbooleem mindeef yi ginnaaw yonent yi am na daal lu mu ko waxatee audio bi mu ci groupe bi ba léegi mën ko déglu bi ma ñëwee mu ne ma lan mooy sama ci loolu ak ci loo xam ne sama gëstu yóbbu na ma ci moom loolu la ma laaj moom sëñ moom sëñ Maamun xam nga laaj bi laaju insaaf la xam nga bu ñëwoon rek ni ma yow lan nga ci xam wala lan la la say maam wax mais bu boobaa damay ñëw jox ko aqida bi nga xamante ne moom la suñuy maam ak suñuy baay ak suñuy sëriñ nekk fii ci Sénégal mais daf ne ma lan la ma samay gëstu yóbbee ak lan la ma ci xam-xam may bi ma ñëwee di ko tontu yaakaar naa wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ku déglu sama tontu démb yi di nga xam ne jéem naa le maximum possible tontu ko ci bañ a par parloo ak ci li nga xamante ne nii wax dëgg yàlla achahaada lillah la sama diggante ak yàlla bu ma tëddee sama kaw loxo nday jóg bu ma yàlla laajee loolu laa koy tontu jéem naa fexe loolu le maximum possible ñoom waxaab yi nag ñoom pour ñoom loolu toor la mooy li ma wax démb ci bi ma koy tontu que gënante ci biiru saxaaba yi surtout gënale Seydina Aboubacar ak Seydina Omar topp Seydina Ousmane loolu ci ginnaaw gi ci la nekk xadiya siyaasiya bañ bëgg koo transformé di takfir sax koo xamante ne dafay gën a keneen ci kaw Seydina Abubakar waaye ci njëlbeen ci njëlbeen duutoon xadiya siyaasiya waxu xam-xam la woon te jamono jooju noonu boo fa delloo dinga gis ne ñoom saxaaba ci seen bopp dañ daan am wuutee ci loolu ma daal di lim ay yenn ci ay saxaaba ñoo xamante ne ni seen ra'yu mooy Seydina Ali moo gën ñëpp daal di wax ne ku mel ni Seydina Abu Hurayra moom ra'yoom mooy bi bul gënale kenn wala xaw ma diw moo gën wax naa daal kenn ku nekk lan mooy ra'yoom mais loolu ci jamono saxaaba yi ci seen bopp ba pare ma joxe ay dalil ci ay xadis léegi nag ñoom gis nañ ne loolu tashayyo la man de yaakaar naa ne waxuma ci sama biir audio bi ne Seydina Ali moo gën mboolem saxaaba yi dama ne li ma gëm ci sama xol mooy li ma gëm ci sama xol mooy ci saxaaba yi mën na nekk ne Seydina Aboubacar moo leen gën ñoom ñëpp waaye xamal ne mën nga dem àllaaxira fekk Seydina Ali gën leen ñoom ñëpp naka noonu mën nga dem fekk Usaama ibnu Zeyd gën leen ñoom ñëpp mën nga dem àllaaxira fekk Zeydu gën leen ñoom ñëpp mën nga dem fekk Ammaar ibnu Yaasir gën leen ñoom ñëpp bul ci am problème léegi nag li nga xamante ne mooy porte de sortie te man loolu laa gëm pour le moment ndax defuma inna wajadna abaana ala ummatin billahi wallahi tallahi tariqa tijaan nekkuma ci ngir ne bàyyi Niass ci la nekkoon wala ngir ne Sidil Hadj ci la nekkoon dama cee nekk ngir dalil yi ma bàyyi Niass jox ak bi ma jàngee téere waa tijaan yi dalil yi ñu joxe daf maa doy wallahi bu ma dalil yi doy toon ma génn ci tariqa tijaan bu yàgg man awma problème parce que gis nga wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan booy dem ci kanamu yàlla yow kenn yaay dem avec ta conscience ak li nga jëf euh, dëgg la nag xam naa ne yow mën a doo kulla unaasin bi imaamihim waaye loolu dafay fekk nga nekk ci yoon wa waaj a nekkoon mais bu fekkee ne waa ji dalil yam la jox ca yoon wu mu nekk doyul la doo ko topp yéen yéen salafiste yi looloo tax nekku leen tijaan looloo tax nekku leen nekku leen murit parce que da ngeen a jàpp ne tariqa tijaan leen convaincre pour ngeen mën a nekk tijaan waa mais léegi man mi nekk ci tiijaan yeetu damaa bëgg ngeen xam ne nekkuma ci ngir samay maam wala samay sëriñ ci lañ nekkoon mais dama ci nekk ngir dalil yi ñu ma jox daf maa doy léegi buñ ñëwee ci xadiya bu mel ni gënalante ci diggante diw ak diw mais bu fekkee ji jox nañ ma ay dalil ma gis yeneen dalil yoo xam ne ci la sama xol gën a dal mais am naa droit pleinement que man duma mu ci ne diw moo gën waaye ku gën baax na maadaama ñoom ñëpp ñu baax lañ ana problème bi seet naa alxuraan li ko daggee ci baxara ba minal jinnati wannaas alhamdulilah mokkal naa ko mais gisuma fu yàlla waxee ne Seydina Ali moo gën wala Seydina Abubakar moo gën wala Seydina Ammar moo gën xool naa xadis yonentu bi li ko daggee ci Muwatta Malik ba ci arbauna xadis mais gisuma fu yonentu ma sa waxee ne Abubakar moo leen gën wala Aliyu moo leen gën wala Omar moo leen gën mais yonentu joxe na ay ishaaraat léegi ci ishaaraat yooyu noonu kenn ku nekk am nga droit ta'wil ko nu mu la neexee mboolem ñuy wax gëneelu Seydina Abubakar ci kaw xeet wi benn dali seen dalil bi gën a rëy seen dalil bi gën a rëy mooy ne yonent bi jiital na ko mu jiite nit ñi ba mu feebaree mais bu fekkee ci jiite julli ba ba yonentu feebaree ci lañ mën a tawile ne Seydina Bakar moo gën mbooleem xeet wi naka koo xamante ne yonentu taxaw na téye loxoom ne képp ku may sa njiit Aliyu mooy sa njiit lu tax mënuñoo may ñeneen ñi tawil ne ñoom tamit ci loolu noonu yu moo gën te indi naa saxaaba yi nga xamante ne ñoo am raayu boobu ki ci njëkk mooy sayidatuna Fatima sayidatuna Fatima gëmut ne am na ku gën jëkkëram sayidna Hasan sayidna Huseyn gëmuñ ne am na ku gën seen baay gëmuñ ko sayidna Bilalul Habashi gëmul ne am na ku gën sayidna Ali sayidna Xabbaab gëmul ne am na ku gën sayidna Ali sayidna Ammar noonu sayidna uh, Abu Zarin noonu mais bu fekkee loolu ma wax ci saxaaba yooyu dafa amul dangay toxal feneen nee ma da ngay fen nee ma Cheikh Baye li nga wax amut parce que Seydatuna Fatima nee na Seydina Babacar moo gën nga indil ma nax bi mais taxaw di muraawaxaat naan ma ay Seydina Babacar laa bëgg a laal wala Seydina billahi wallahi tallahi bu ma amoon lu may laalee Seydina Babacar laal naa ko bu yàgg lii dama bëgg ngeen xam ko mu dugg seen nopp yi une bonne fois pour toutes man ragaluma kenn ku dul yàlla amul dara lu may ragal lépp lu ma dalil jox dama koy téye Seydina Aboubacar wallahi allazi laa ilaha gayruhu ba bu may dugg ci sama biir bàmmeel xalaatu ma ne bis dana ñëw ma mës a suufeel dara jaam wala ma di ko bañ wala ma di ko xeeb wala ma di ko laal parce que aw ma benn dalil bu may jëmee ci loolu en tout cas pour le moment bépp dalil bu nekk ci sama loxo dalil la bu koy màggal buy waral ñi màggal ko buy waral ñi teral ko lu tax bëgg kut ko kut di ma pousse ci moom lu tax ngeen bëgg kut ko kut ne man dama damay suufeel Seydina Abubakar bàyyi leen li ngeen di def ragal leen yàlla ragal leen yàlla mais dama ne leen bu fekkee ci xadiisu jiite nit ñi julli am na ñu ci mën a taawil ne diw moo gën mais ci xadiisu man kuntu mawlaahu te xadiis attention xadiisu man kuntu mawlaahu boobu lu mot quatre-vingts saxaaba ñoo ko riwaaye bokk na ci xadiis yi gën a wér ci kaw suuf xadiis yi gën a wér ci kaw suuf parce que yonent bi daf koo wax ba mu jugee xajjatul wadaa ci xadiru xumin lu ma fukki junney saxaaba yi doon dellu Medina ñëpp a fekkee wax jooju noonu loolu waral ci téere sunna yi kottu laa la wax lu ma quatre-vingts saxaaba ñoo riwaaye xadis boobu bu fekkee xadisu xadisu man kazaba alayya mutaamidan soixante-dix saxaaba ñoo ko riwaaya wala soixante onze xadisu man kuntu mawlaahu lu mot quatre-vingts saxaaba ñoo ko riwaaya mais yéen yéenay wax ne nañ ta'wil zahir nañ ta'wil zahir buñ ne arrahmaanu alal arshi stawa ngeen ne yàlla ngi ci kaw nañ tawil zahir buñ ne yedullahi loxo yàlla nañ tawil zahir buñ ne yed arrahmaanu qadamahu ngeen ne tànk yàlla la nañ tawil zahir mais bi achaira waxee ne yadaw rahmaanu qadamahu da ngeen achaira yi loolu mbooloowu xéeféer yi la ne déedéet nañ tawil zahir loolu tànk yàlla la yàlla dafa am tànk yaa xasrata ala ma fi jambillah ngeen ne yàlla dafa am wet mais bu yonentu waxee man kuntu mawlaahu mawlaa ci arab xam nañ li muy firi képp ku ma di sa sang wala képp ku ma di sa njiit fa haada aliyun mawlaahu aliyu mooy sa njiit mais bu fekkee am na ñu mën a déggee ci taawil boobu ne aliyu mooy njiitu saxaaba yëpp mais bàyyee leen leen dégg déggin boobu lu tax ngeen bëgg a tànc dégg dégginu l'islam bu leen arrangé yéen nahnu abnaullahi wa ahibbauhu lépp lu ngeen teg kenn di ko teggi waaye bu ñeneen tegee ngeen football ko ci xaj come on now come on now nañ déglu Atoumane après ñu ñëw. wa rahmatullah euh, mbokk bi dina ñëw ba egg maa ngi koy ecc rek maa koy ecc bu baax a baax a baax a baax a baax léegi démb mi ngi sikk ci xadisu al asharatul mubasharat bil janna mbokk yi dégg ngeen li wax. nee na démb maa ngi sikk ci alxadi ci xadisu al ashratu mubashara bil janna mais man lan laa sikk ci xadis bi dama ne leen ay laaj laa laaj mais bu ngeen ma ci mënee tontu ngeen tontu ma ci dama ne leen xadis boobu noonu man gis naa ne fukki nit ñi ci yonentu bi tudd ñëpp ci muhaajiruna lañ bokk amul benn waa lansaar mais bu fekkee ci fukk ñooñu am na kenn ku ci nekk ci lansaar da ngay ñëw nee ma bàyyi ñes da ngay fen parce que diw sàngam lansaari la te mu ngi ci hadis bi aussi simple que bonjour man de billaay bu doon man noonu lay def ak bu fekkee dama ne fukk yooyu noonu yëpp muhaajiruuna lañ te nga xool ko gis ne muhaajiri lañ mais pourquoi nga naan damay sikk ci hadis bi ndax li ma wax dafa amul tontu ma ci question bi ñaareel bi ma ne gis nañ ci taarix ak ci xadis que ne jour bi yonentu di séddale màng jox waa muhajiruna bañ a jox waa lansaar waa lansaar dañoo jug kaas ko ma ne nag bu fekkee ci séddale alalu àdduna kot waa lansaar ñu ngi ci interroger yonentu bi naka ci séddale aljanna ñu toog dégg yonentu lim fukki nit yu bokk ci muhajiruna te limut kenn ci lansaar ndax duñ jug wax léegi bu fekkee question boobu dafa logigul dañ naan ma sa question bi logigul parce que nangam parce que nangam aussi simple que bonjour ba léegi waxaguma ne damay sikk ci xadis bi wala gëwma ne ñooñu waa aljana lañ ba léegi waxaguma ko Seydina Abubakar saa yu may jàng sama xatmu alxuraan ci àjjuma bu nekk bu ma tuddee yonent bi Seydina Abubakar laay jiital balaa may tudd Seydina Ali balaa may tudd Seydina Ousmane balaa may tudd keneen bàyyi leen seen yi ngeen ragal yàlla ñetteel question bi ma posé woon mooy bu fekkee ne ñoom fukk ñooñu noonu yonentu bi dig na leen aljanna lan moo tax na Omar ci jamonoom mu daan dem ci Seydina Xuseyfa ak Seydatna Umu Salama di leen laaj ndax moom bokkul ci naafeq yi xanaa dafa gëmul dig boobu yonentu digoon ko aljanna léegi da ngeen di fexe ngeen boolanteel ma ñaari xadiya yi bu fekkee xadiya dem bi ñu wax ne dem na ci Seydina Xuseyfa ak Seydatna Umu Salama laaj leen ndax moom bokkul bu fekkee loolu dafa wérul da ngeen naan ma xista boobu wérul bu ko defee ñi jàpp xadisu ashal mubashara bu fekkee wér na ba pare xadis bale wér da ngeen ñu koy jéem a booleel ndax Seydina Omar dafa gëmutoon dig bi ko yonentu bi dig ba tax muy sikk sàkk ndax moom bokk na ci naafeq wala bokku ci wala ndax gëm na ko lan moo waral kon muy dem di laajte parce que man li ma xam mooy tey jii bu ma bàyyi ñes oowee ne ma bokk nga ci ñi nga xamante ne faydu bi dañ leen di tiitaroo damay gëm ne faydu bi daf may tiitaroo du ma dem di sikk sàkk ndax man bokk naa ci ñu génn faydu bi ndax man bokk naa ci kuy faydu bi wala déet mais ku mel ni yonent bi toog ne la na nga jëm ba pare ngay dem di sikk sàkk ndax yow naa feex nga wala doon naa feex léegi da ngeen ñu dimbale ngeen boolanteel ñu ñaari question yi ngeen defal ñu wëjhu tarjix aussi simple que bonjour ngeen bàyyi seen dof-doflu yi ñun question yi leen di laaj dafa leer clair et précis tiijaan laa nag mënoo maa yóbbu fenn fu dul tiijaan bi ma jullee fajak tey suba jàng naa samay wérde lazim def naa samay lawraat def naa samay maqasid munu leen ci loolu trente ñeente parce que tijaaniyatu boo ko ñamee ba pare da ngay xeeb leneen lu dul tasawuf tasawuf laa gëm bàyyi leen seen caaxaan gi bàyyi leen seen caaxaan gi seen gudd sikkim yeeg seen tuba yu cëkk yi mënut maa tiital seen xadis yi maa leen ko gën a xam maa leen ko gën a mokkal bàyyi leen seen dof dof lu ngeen dellu ci sawraay bi ngeen tontuñu ci suñu question yi bu ngeen ko mënul ngeen ne mu te ngeen seetaan ñu buñ paree li ñuy def ba pare li ngeen xam lan mooy suñu objectif ñun. nañ ko nañ ko dégluwaat li mu wax. ci audio bi ma jot mi ngi bëgg a sukkandiku ci xadiisu man kuntu mawlaahu fa ali mawlaahu kon wareesu la gënal Abu Bakar ak Omar ak Ousmane ci kaw Ali donte wax ko mu leer. mbokk yi dégg nee na damaa bëgg sukkandikoo ci xadisu man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaah ba pare bëgg wax ne waree su la gënal Aboubacar Omar wal iyaazu billah wal iyaazu billah aatumaan ñeme ngaa waat sa digganteeg yàlla ne loolu laa wax ñeme ngaa waat loolu audio yi ma waxoon ñu ngi fi dama ni xaaral ma waxal ko boo ko déggul nga dégg boo ko déggutoon nga dégg ko dama ne ci saxaaba yi diw ak diw ak diw ak diw ak diw dañ daan gënale na ali ci kaw mboolem saxaaba yi te seen dalil ci loolu mooy yonentu nee na man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu léegi danga may wax bu fekkee xadis bi dafa wérut nga wax ñu bu fekkee xadis bi dilaala boobu dañ ko cee mënta déggee nga wax ñu bu fekkee saxaaba yi ma wax ne ñoom loolu moom moom lañ gëmoon dañ koo gëmut nga wax ñu te nga indil ko dàq bu fekkee ne xadis bi wala ñoom saxaaba yooyu dañoo amul droit comprendre leneen lu dul yow gëm ne Seydina Abubakar moo gën nga wax ñu mais pourquoi yow nga bëgg a may sa droit nga bëgg may sa bopp mbooleem droit yoo bëgg mais ku dul yow doo ko may benn droit lépp lu mu wax nga ne subaha la lépp lu mu wax nga ne péché yoo la lépp lu wax nga ne teggi yoon la diine l'islam yàlla tënkeewul ko noonu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ci l'islam kenn ku nekk nga gëm lu la neex looloo taxoon yonent bi daan consulter saxaabaam yi ba ci jour xare badar bi ñu ñëwee balaa ñuy dem ci xare badar ci boppam ba mu dajalee saxaaba yi di leen laaj kenn ku nekk joxe rayoom bi ñu ñëwee jàpp asra badar yi kenn ku nekk joxe rayoom mais ray yu contradictoire amul kenn ku ci wax sa morom ne ko yow li nga wax ay subha la wala nàngam mais ñaari xadis ñëw na benn bi ne yonent bi jiital na Seydina Babacar mu jiite julli bi yonent feebaree beneen bi ne yonent bi ekkati na loxo Seydina Ali ni képp ku may sa sang Seydina Ali mooy sa sang mais yow bu la neexee nga gëm ci xadisu jiite julli boobu noonu ne Seydina Abubakar moo gën ñëpp mais bàyyil keneen ku bëgg a gëm ne Seydina Ali moo gën ñëpp mu sukkandikoo xadis bale lillahi wa rasuli ndax ndax bu fekkee ci wàllu alquran Seydina imaamu Shafii ak Seydina imaam Malik fi yàlla wax ne wamsaxu bi ruusikum ida qumtum ila salaati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxu bi ruusikum bu fekkee ci baa u biru uusikum boobu imam malik am na droit ne il faut nga masaa bopp bi from cover to cover imaamu shafii ne ko déedéet man li ma ci déggee mooy bi ba biru uusikum maanaam même bu benn karaw laalee baax na mais te ñoom ñëpp benn aaya lañ sukkandikoo benn baa moo leen wutale mais adduna bi yëpp dëppoo ci respecter imaamu shafii ra'ayoom respecter imaam malik ra'ayoom pourquoi pourquoi Seydina Bilal ak Seydina Xabaab Seydatna Fatima Seydina Hasan ak Hussein duñ leen respecteel ci xadisu man kuntu mawla ñu ne Seydina Ali moo gën ñëpp te pourtant ñun ñu ngi bëgg a may suñ bopp ci xadisu jiitu julli que ne Seydina Abubakar moo gën bàyyi leen seen yi ngir yàlla yonentu bàyyi leen seen yi doy na waar trop maanaam droit bi imaamu Shafii mën a am ci l'islam ak imaam Abu Hanifa ak imaam ñoom saxaaba yooyu noonu mënuñ kaa am saxaaba yu mel ni Seydina Bilal saxaaba yu mel ni Seydina Xabbaab Abu Zarin Ammar ibnu Yasir Alxasan Alxuseynu mënuñoo am droit boobu noonu